saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa sunu lamb 2019 ba waa sunu lamb jël jébbal ko waa Yoff keroog samedi écurie Yoff couronné loolee la sunu lamb xëyee tey ndaje ma mu nga daan xewee ca place njëw ba ca Yoff keroog ca samedi waa axlu lamb yépp nga woon ca Yoff ngir encourager leen bu dee ca mbëree la sunu lamb xamle mooy rëg-rëg et tafaatin mét la fa tafaatin ak rëg-rëg teew nanu foofee yëngal nanu foofee ba mu yëngu ba rëg-rëg noppee la mu xamle mooy lii day pousser écurie yi ngir bu baax baax bu dee tafaatin mooy sama combat léegi mu taxaw dootul yàgg dara ngeen dégg na tafaatin am na adversaire tafaatin fait une révélation double XL la journal ba xamle rax ca dolli moom tafaatin ne damaa duna ane balance looloog làmba ànd waaye njortu naa ne ren danaa bëre ndax maa ngi wax ak i promoteur maa ngi waxtaan ak i promoteur te jàpp naa ne du yàgg dara sama combat taxaw ka war a bëreeg tafaatin xamaguñu ko koy tëgg combat ba xamaguñ ko waaye leer nañu ne tafaatin moom na te léegi combaam taxaw ak booy yëmbal di jàkkaarloo ci première édition petit production foofee dañoo njëkk a bëre teqante wuti suuf ku ci nekk say mbokk daw lëng la ne la yaa daan waa yëmbal daw boot booy yëmbal ne moo daan waa ngor it daw boot xeeru ngor ne moo daan arbitre ba ba mu concerté woo ki zizam dañoo ne nañu woote waat ndax taq na suuf ñu dàq gaay génn leen géew ba sifflé waat diggante xeeru ngor ak booy yëmbal ñu commencé waat noonee la ñu def bëre waat bëre bu neex bëre bu technique booy yëmbal mujjee daan xeeru ko dàq écurie na ca ca mu a yaatoo moom Thierno Dramé trésorier écurie Fass mooy la waral ñu teg règlement ba mu ne xam ngeen ne Gris 2 bi ko rëg-rëg daanee dafa génn lu ne mu wax tuuma yu ne mu yëkkati ko teg ko ci ndodd écurie bi problème mu Tapha Gueye 2 ñépp yëg nañu ko bi ñaari xew-xew yooyee amee nag la waa Fass taxawaat jàngataan mbir mi xoolaat seen bopp ne trop c'est trop xeeti jëf yi nag ëpp na ba tuuru gannaaw am nañ règlement intérieur boo xam ne ni bañ ko defaree léegi ça cinq ans te boobaak léegi dañ koy appliquer à a xam ne lii mooy règlement bi képp ku fi defati lu waaye mii mu dal ci kawam de bëgguma woon mu dal ci kawam ndax dama koo jàppe comme doom papay Papa Sow maag la dénk Papa ba mu ko indee ci écrit bi la ma wax mooy Thierno sa doom a ngi ni téyel ma ko ba ñu falee Abbas Ndoye mu delluwaat ca kàddu yéen Thierno Dramé yaag Abbas Ndoye dénk naa leen Papa te moom Papa Sow ku waxte yàlla rekk tax xam ne maag Abbas Ndoye lu ne daj nañ ko ci moom maag Abbas ñoo jël ay engagement la Lac Rose Balla Gaye 2 ay xarit la waaye loolu seen relation personnelle la sunu yoon nekku ci ak affinité yu mbër am ak moroomu mbërëm ñun sunu yoon nekku ci lii sunu wax mooy règlement la teg dañ koy appliquer te lii xew diggante Papa ak Fass jàpp ma ne mën na am solution ñépp xam nañ ne du Thierno moo ko dàq du Abbas moo ko dàq kenn dàq ko bu dàq di am kay Papa Sow bi moo ko dàq séparation digganteem ak Fass nag man dina ma naqari diggante Baye Mandione a xooyantaan journal ba xam le ne après avoir capoté en Gambie dañ ko bëgg taxawal fii ci Sénégal diggante Baye Mandione a xooyantaan comme tëgg nañ ko ca Gambie àggul dañ ko bëgg a tëgg fii ci Sénégal benn jeune promoteur bu ñuy wax Alioune Cissé mooy démarché combat bi ngir taxawal ko ca Kaolack moom Alioune Cissé mu ne combat bi nga xam ne dafa tas yaakaaru ñëpp amateurs yi nekk ci Sénégal doon ko xaar ñi nekk ci Gambie di ko xaar Ibrahima démb moo doon dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak Libidor foofee journal ba xamle mooy vainqueur de Libidor par KO kookee buñ ko waxee Serigne Ndiaye 2 la Serigne Ndiaye 2 bu Fass wane na ne champion la mbërëntaan la gannaaw ba ko Libidor daanee ñaari yoon ci lit sans frappe Serigne Ndiaye 2 da ko mere guuxal ko doon xaar le 22 ba arbitre ba sifflé ba génn seen diggante mu miime miimewaat Libidor di jël si tànk Serigne Ndiaye 2 da koo seen fëgg waa association ànd bu yàgg bi de ñaaxaar ñoo tëggoon bile gala 1 million 500 mille lañ fa teg mbër yépp teew waaye foofee assurance bu mbuur moo fa daan ordinateur jël final ba bu dee ci Adrien Senghor keroog dimanche la woon dixième journée ba foofee ëbbali moo daan Mamadou Gaskel jàmme yóbbu final ba le journal ba xamle foofu mooy ëbbali célèbre sa première victoire ñeen fukki mbër ya fa nekkoon ñañ ca mën a jàpp bokk na ca góor a sokk foofu ëbbali moo mujjee final ko ca kanamam a fës ci ëttu yéenekaay bi leen di jox dig daje ba